saraax la ñuy def ci xew-xewu réew mi tey doore kook Déthié Fall ak partem bu bees suñu wax parti républicain pour le progrès moom honorable député Déthié Fall ku ko xam ci keppaaru Idrissa Seck nga ko xamee fukki at ak juróom benn yamu def ak Idrissa Seck du fukki weer ak juróom benn du fukki fan ak juróom benn seen ànd boobee bu doon ab sëy la ne tas na ba ku nekk ñibbi ci say mbokk démb la Déthié Fall fësal li ni mel roccee ko ci parti Idrissa Seck taxawal parti boppam la waral ñu wàccee ko ca poste ba mu yoroon ca parti ba moom na ca a yaatoo waral ñu ko lenn képp la mburoog mu waxoon soow mi booy bi xejamal ko dong ko tax a jóg waaye dootu ko defati li ni moo waral Déthié rocceeku ca parti ba ba wi ci taxawal beneen parti boppam journal ba rax ca dolli ne moom Déthié mbooleem taxawaayam ci biir assemblée nationale fësal na ko ci démb bi muy def discours am Sud diggante Déthié Fall ak Idrissa Seck léegi ay wujj parti républicain pour le progrès ñu gën koo xam ci PRP diisoog askan wi taxawal nañ ko ni démb moom Déthié Fall ca toftal mooy congrès ba ñu ngi ko jàpp ci décembre moom Déthié Fall démb lu mu yëkkul Idrissa Seck da koo fàtte Les Échos ne Déthié Fall fësal na démb lu ñu mësuloon njort ci moom mbooleem la ko doon fay ci assemblée nationale salaire ba mësu caa lekk benn dërëm ni muy ñëwee la koy delloowee askan wi moom jàpp na ne salaire boobee am mètre carré bi mu jox dama leen doy na sëkk soxlawuma ko beneenu opposant tàbbi na ci langu politique bi loolee la Vox Populi xamle Déthié Fall def na soam bàyyi na Idrissa Seck fas yéene naa ànd ak askan wi mburoog soow ma Idrissa Seck da ko caa tànqalab kaas Déthié Fall lànk ba tëdd ca ñàkk ba ne du ca guux ba Idi insisté dafa tibbab loxob suuf ne ko ca këpp looloo ko jural génn parti réew mi taxawal parti boppam di PRP rax ca dolli kàddoom génn gi askan wi génn fësal seenum naqar coono képp ko xeeti jëf yoo xam ne réew mi kenn dootu ko fi nangu ñi jiite réew mi boo gisee seeni doxalin xam ne amuñu culture état reportu élection yi ñuy ruumanaat nag moo nar indiwaat beneen crise politique ba laaj job ca les économies beneen crise politique bu ñëwee ci réew mi lu ngeen ci góobe na ngeen ko gar yéen opposition bi liñ leen may dafa ëpp yéen a ngi wax waxi deuxième vague ñu ne déetawaay ngeen wax ngeen ñu saagaa ñu saaga leen bu ngeen ñu waxee ñu xuri leen ku taal suñuy kër la xëyul Téliko moom le juge Téliko am na lu ko naqari lool ci Madiambal Diagne jóge ci mbiru Hissène-Habré Walf Quotidien président UMS di Union des magistrats du Sénégal dafa fas yéene jébbal citation directe Madiambal Diagne moom patron journal Le Quotidien boobee accusation bi Souleymane Téliko fas yéene ko bàyyi mu sedd maître Bamba Cissé ak Ciré Clédor la taf ci wetam ngir ñu porter plainte Madiambal Diagne ñu noppee ñoom waa IMS dañoo jublu ci waa m 2 yi ñuy attaqué le juge d'instruction bu Jurbel ñoom waa IMS la bëgg mooy na dakk laas yéene moo fësal li ni mel xam ne waa IMS dañoo bëgg mbir ma dakk ci na mu gën a gaawee mbiri mbaam yi doon lëmbee réew mi ci fan yi ñu génn enquête yéene ñëw na ci ci na mu gën a yaatoo mbaam yi baara joob yee ca njaareem kañ ca doon tudd di le directeur de l'emploi Pape Modou Fall xëy na fësal ay kàddum réussir ko nañu def ak téeméeri jeune porteur de projet noonu la ñuy def ak Bara Diop ma daali si syndicaliste ba ne roñ balit ci sareetu mbaam kay loolu nekkul lu bees na mu ko tudde mooy mal nécessaire lu réew mi dépassé la nag waaye lu mënul ñàkk la fa nuy jeexale mooy ca mbiri tàggat yaram ak journal sunu làmb ak combat ba war a dox ci diggante Lac de ak Eumeu Sène Lac de la mu jàpp mooy màgg naa kenn mënatu jaar sama kaw jàll Eumeu Sène fi mu toll ceetu yéenekaay yi ñu leen jox di daje ba ëllëg incha allah.